ñàkk kaaraange doon lu ñuy gën di nemmeeku ci dëkk bu sell bii di Touba faat ay doomu aadama sàcc gu ànd ak ngànnaay ak yeneen ñaawteef saa su ne ñu di ko gën a nemmeeku fii li waral kilifa yi fi teewal nguur gi ak kilifa yi bokk moomeel kilifa diine yi amaloom ndaje ngir jéem wut saafara ci mbiru mu nu mel ay matuwaay yu bëri ñuy jot ko si jël. mesure yi ñu wax fii gouvernement moom il faut ñu éliminer leen réseau bi élimination totale lañ bëgg. jakarta yi dañ leen di éliminer. lépp luy problème ci biir Touba ñu ñu ko di gaar bu mag batiment yi tabax ya fa nekk il faut ñu utiliser ko utilement utilement mooy lan mooy jox ko ñu ko occupé ña fa nekk ñu génne leen mbaari madayaay ni ay mbaari ñu teg ci mbedd mi rek la tegul fenn il faut que police na fay def descente ak gendarmerie il faut ñu éliminer leen affaire patrouille incha allah police ak gendarmerie nañ koy yokk brigade de vigilance bu ñu jógee fii quartier par quartier s'il le ñu monter fa benn brigade de vigilance marché bu nekk focal sécurité niche la yi nekk ci biir tubaay yëpp nag aussi fu mu mën di doon moo xam Pala Ndiogou Kébé la moo xam feneen loolu aussi ñu identifier ko di ko bàyyi xel di seet même bu dul police gendarmerie nit yoo xam ne dañ fa mën a nekk di joxe renseignement bi à temps utile la fay dugg la fay génn. waa police ñoom itam teewoon ci ndaje mi yëkkati seeni kàddu di sàkku. jàppale ak askan wi. nous demandons à la population de collaborer pleinement. ñu ngi sàkku ci askan wi ñuy lëkkaloo ak takk der yi ngir di leen wax li xew waaye dañoo nemmeeku ne fii ci Touba loolu ab jafe-jafe bu mag la fii. loolu bokk na ci li yokk ñàkk kaaraange gi. ce qui crée davantage l'insécurité. waa gendarmerie ci seen wàllu ñoom itam fësal seen yittewoo ak askan wi laata ñuy ñaawlu leen ci ay jëf yu ñu def ci seen kaw. généralement on nous donne des informations et quand la la gendarmerie débarque sur le lieu. lu ci bëri dañuy jox ay xibaar léeg-léeg bu gendarmerie demee dañuy gis ne euh, benn waay la rek bu doon fonto waa gendarmerie. te loolu baaxul moo tax ñuy ñaan délégué de quartier yi askan wi euh, ñu gën a bàyyi seen xel euh, ci seenum réew ngir euh, lii nga xam moom la ñuy jàmbat tey ñu man ci ni saafara. ce problème là qui actuellement habite les populations de Touba. lëndamaay gi bokk ci lu gën a bëri luy waral ñàkk kaaraange gi lii tax kilifa bokk moomeel gi ne ñoom itam fas yéene nañ see jël seeni matuwaay. ngir saafara lu nu mel. bu ñu fexee ba xeex lëndëm googu ba lëndëm gi wàññeeku ci dëkk bi kon loolu dana ki loolu moo tax budget ren bi boo ko xoolee boo ko xoolaatee am na ñaar téeméeri million ak juróom fukk yoon nga xamante ni bii. pour lool rek moo tax ñu dugal ko ci. ngir lu yokk kaaraange gi ab numéro vert police ak gendarmerie jébbal ko askan wi ci biir ndaje bi ñu doon amal ak kuréel ñu taxawal ko ci guy war a saytu lépp lu jëm ci wàllu kaaraange gi. préfet mi di joxe ndaje weer jot ngir ñu saytu fi ñu toll ci liggéey bi.